xëy banque seen loxo la chauffeur receveur ak it contrôleur yu bis tata yi xëyee si altine gi sa terminus bu joor daanaka du benn woto bu fa bàyyeekoo responsable lañ fa fekk di ñu xamal li sabab grève bi. liggéey nañ 16 ans sans contrat suñ condition de travail respecté ñu ci dara aay bi ñuy xëy ak aay bi ñuy wàcc dafa jéggi doyoo 4 heures du matin la ñuy xëy di wàcc 22 heures wala 23 heures. te ñu ñuy liggéey joxuñu suñu àq ak suñu yelleef. amuñu condition yi baax salaire yi demee fa noonu 4 heures la ñuy xëy 22 heures 23 heures la ñuy wàcc ñi siy teel a wàcc nag ñooy wàcc loolu te des fois da ngay a wàcc sax ñu waat la ne la dellul heure bi dafa teel. grève moom 48 heures la tey wax bu fekkee ni ñoom am na ñu ay responsable yoo xam ñu ngi si kaw nee ñu ngi waxtaan ak ñoom pour négociation bu fekkee li nga xam ne moom la ñuy xeex def nañu ko parce que ñun buñ sañoon sax bu subaa mu jeex moo ñu gënal parce que ay Sénégal ay citoyen lañ nañ suuraale askan wi ñi nga xam noo bëgg dox seeni soxla. ñun nag mënoon nañ génn si télé bi di xeex di sànni di xeer mais gisoo chauffeur bu ko def grève noble la ñuy def sañ sa ba rafet toog si terminus bi taaluñu pono sànni wuñu xeer dañuy wax ak ñoom si njëkk ak teraanga dañoo wax nag ba sonn durant 15 ngi waaj 2005 wax nañ ak ñoom ci ba sonn faale wuñu ñu xëy gaare oto yi ba xam su solution dina am loolu lañ bëgg xulawuñu xeexuñu waaw ñoom moom seen oto bag mais mais ñoom moom suñuy permis gaare woto yi si ñaari fan dinañ ko xamle ñoom liggéeykat yu bis tata yi xam xamle nañu itam coppite yi ñu namm tey artu njiitu réew mi Macky Sall. li ñu bëggoon oto bu si nekk am ñaari chauffeur bu kii xëyee ba midi une waa wàcc keneen gontu ngay am congé contrat yoo ñu teg si daal si condition yu baax waaw loolu la ñu waxoon te ba léegi 15 ans kenn defu ko. problème bi mu am man ñii sama ginnaaw ñëpp mën am moo ngi si signé suñ ay contrat contrat yoo xam ne durée terminée lay doon waxuñu ay contrat 6 mois ay wala ay ñun anciens yi nga xam ni yàgg nañ fi. am ah. nañ fi 16 ans. wala am nañ fi dix ans wala cinq ans ñu fay ngi suñ ay activité diñ wersil IPRES ak caisse sécurité sociale buñ feebaree mën a faju buñ demee retraite ñu mën a fay suñ pension ñoom ñi boo leen xoolee presque ñu ngi retraité da ngay gis dañuy dawal dix ans quinze ans borom oto bi xëy wàccee ko oto bi du mujj fenn amul droit amul dara ñu interpellé nag Macky Sall président de la république parce que problème bi yëpp xam na ko moom bi taay bi ñuy wàcc mu ngi si gouvernement Abdoulaye Wade kon lépp fi la ko fekk ba tey te joonoon ko fu ne kon suñu problème moom da see war a taxaw mu réglé ñu ngi nag ñun chauffeur receveur contrôle mankoon dokk benn suñu carte nag ñoo ko moom man noo fal man noo fuli liñ bëgg mu suñu aax ak suñu yeleef kuñ ko jox ñu ànd ak yow ku ñu ko joxul ñu dem ànd ak ku ñu ko mën a teglal ñoom liggéeykat yi grève bi ñu sumb daanaka gàllankoor yu rëy la jural ñenn ci askan wi waaye ñi nga xam ne ñoo yëngu ci yeneen xeetu transport yi ñoom seeni mbir a ngi ciy dox bu baax ah waaw parce que liggéey moom booy liggéey da xaalis moom boo sañoon moom da nga ciy ba parce que xaalis moom kenn du ko am di doyal waaw bii si moom nan toog ba sa kanam kanam rek signé leen ay contrat saytuwaat payoor bi ñu leen jagleel fexe ñu am IPM ak IPRES yii mooy yenn si yi nga xam ne chauffeur receveur ak it contrôleur yu tata yi ñu ngi koy réclamer waral ñu nas ñaari fanu grève yi